def ñu tooñ ñu tooñ président. waa yow ak ak Keres danañ ko jiiñ ak ak ak Youssou Ndour. yu yu lu nu def ñu jiiñ ko président président waxul sax du jëm ci loolu président dafa la noonu arène nationale condamné ci loolu mais nag secteur bu ci ne secteur privé la nekk ku ci ne yaa war a nag a yi ak sa sa sa xam-xam ak sa xel set nooy tëggee làmb nooy jàppale sunu doom yi sunu jarbaat yi ñëpp. jàppale yi askan wi aussi ñu commencé waat di seetaan làmb ji ci bi delluwaat fa mu dellu woon fa mu nekkoon ca temps wu classe bac ba 2010 2011 2012. loolu moom yàlla yàlla nañ ci yàlla jàppale xam nga bërki dem maa ngi dégg Ngagne Diagne di wax Gaston yow ñun leen di jaaxal mooy ña ngi fi bàyyi woon depuis cinq ans ñoom nga fi fekkaat. tëggaat leen. tëggaat leen parce que keneen nekku fi. xale yu ndaw yi fi nekk it faut que ñu ñu leen. defal leen promotion ba nu mel ni ñii fi nekk. promoteur yu ndaw yi. promoteur yu ndaw yi ak ak mbër yu ndaw yi sax. mais promoteur yu ndaw yi lan moo tax mënuñu egg ci seen niveau parce que. Euh, euh, dañu am dañu état ñu ngi ci sunu niveau. promoteur yu ndaw ay jàmbaar lañu. ay jàmbaar lañu man du ma wax sax promoteur bu ndaw ay xale lañu d'accord mais ay jàmbaar lañu ay jàmbaar pire lañu ñu ngi def mais nag. dafa laaj ay accompagnement yoo xam laaj na sponsor yi wuyu leen bu baax mais it man du ma leen diggal que li ma daloon man ndubin ma ma rayoon <laughs> du ma du ma du ma ànd ci mu leen di rey mënuma leen a tere nag mais mën naa wax mën naa leen a conseillé man dama daan conseillé dan daan weddi sax ni Gaston dafa soxor Gaston dafa bañ ko ñëw ci làmb ji booba xamul man xam naa li ma xam te su ma sañoon li ma dal ci làmb ji lu négatif du leen dal ñoom su ma sañoon parce que man avant man su amoon beneen Gaston bu fi nekkoon di wax lii may wax xëy na du ko dugg ci làmb euh, nan ñaan yàlla daal yàlla di mu jàppale ñëpp dimbali ñëpp. yàlla jàppale ñëpp dimbali ñëpp. voilà Balla Gaye kii ban mois nga ko def mars wala février. non su saison bi ubbee ba mbas mi wàññeeku rek danañu set diggante fii ak février ak mois de mars. Ah, mais ci ñaan mois yooyu daal nga ko ci bëgg a def. Ah, moom ah, moom la ñuy ñaan yàlla. da nga joxaat kenn fin de saison. kan ji. waaw ah waaw. ku daan foofu mën naa nekk. am na moom nga ne dootul bëri Balla sax moom. déedéet xam nga ñu mel ni yow ñooy yàq làmb yi wax naa ko biig wax naa ko biig ci ITV. waaw Balla neewoon na fi du bëri dootul bëri bu ma dul. waaw di bëri waat na. Yékini neewoon na dootul bëri Bombardier di bëri waat loolu waxu mbër la rek. bëggoon naa bëri waat ak ji. man Yékini waxoon na ko waaye bëggoon naa bëriwaat ak. bëriwaat naa ko ba mu ko daanee ñaari yoon dafa leen dul bëri moom mu tëggaat leen. waaw ah. seen troisième combat. donc loolu waxu mbër la et mbër su waxee dara amateurs yi ak euh, supporters yi ak mbokk yi ñoo ko war waruñu koo pousser wala di ko jéem a tiiñal ndax léegi dañuy tiiñal nit ba du mën a deltu ginaaw ñu suñu yoon mais du euh, du yéen rek du yéen rek. duñ ci dara. du yéen rek sax mais euh, Eumeu Sène. ak Balla gay ay mbokk lañu bi ndem si yàlla sëru Balla Gaye génne àddina wàññeeku yal na ko yàlla yërëm. ama seen dafa dem yendu këram Balla yóbbu ko ba ci yaayam ñu toogandoo ci yaayu Balla xam ne moo leen jur ñoom ñaar ñëpp. donc ay du ma bëreeg mbër du ma bëreeg nit kooku dara kooku euh, communication la rek bu xew bu nekk ci làmb yàgg na ci làmb. kii du ma bëreeg moom dootuma kii doy na kii pare naa ci moom kii leel tel tel am na ñoo xam ne mosunoo bëreeg mbër sax tax ñu du teewul ñu mujj bëri. mais bëgg nga boobu. mais bañ mais nu toogee ba fin de su combat Balla Gaye ak euh, Bombardier pare amul amul combat. Mm. da ki ci daan da koy jël. kon sa amateur yi mën nañu am yaakaar ne Eumeu su neexee yàlla yonent bi. comme sa ñaari doom la ñu ni mbër yëpp nekk sama doom mais am naa ni yaakaar ni. même su ma ko tuggul keneen dina ko tëgg. am nga yaakaar ne dinañ bëriwaat daal. am naa ci yaakaar bu baax a baax a baax parce que loolu lu dara mbër yàgg na ma ko wax ma tëggu. est-ce que jotoon ngaa démarche combat bi parce que ñoom ñaar ku ci nekk commencé woon nga yëngal bu ñu déggee ni ngay wax sax dafa mel ne yaa ngi sori woon nga ci. la ma ci nekkoon la ma ci nekkoon ak yëpp soobee yàlla li ma wax ak yow doy na bari na te du du ma la ci loolu. doy xalifa ñaa sorte mi daa mel ne dara kii de. xalifa ñaa man président Tay Shinger daa mel moo yàq. Euh, non non non non xalifa ñaa miinu ma ko sax mais xalifa ñaa li ma wax garaawul. li mu wax dafa topp rek ci dynamique gu wax ji mbërëm et tout ça mais Khalifa Niang su sañoon tey Eumeu seen am sax ku raw Balla Gaye parce que Khalifa Niang je pense que bu ñu ko nommé foofu comme président su sañoon tey mbëru mbëru taaj si nga yëpp dañuy ami immeuble ami lu ne <laughs> donc Khalifa Niang du nit ku soxor te ko wax waxu làmb la rek maanaam doo ci wax ji mhm. fekkee ni li nit di wax ci làmb yëpp dañ koy euh, dañ koy considéré kon bis bu li ñuy wax bis bu dañ luy yàq làmb rek la ñuy wax te teewul dan koy dañ koy mer wala ñu xuloo ko wala ñu xool déglu ko et puis changer dem ci leneen. tourner page tourner page bi. pour jeexal Gris delloo na la sa 10 millions wala delloo ko. maa ngi koy déglu de façon dana ko delloo moom parce que xam nga xam nga waxuma sax dara mais nag xam nga ngor. sa waay la woon nag Gris waruloo na egg foofu na a ah, waaw euh, c'est euh, dafa tuur yàlla waan na seetaane ko ko jàpp yéen su ma sa yoon. du comporté woo noonu su ma sañoon du waxee it noonu parce que su ne Gaston daf ma sama honneur moom su ma la fekkee li ko président mu wax Abass Ndoye ne ko Gaston su fekkee ni atteindre sa honneur benn yoon yow atteindre nga honneur Gaston dix fois parce que Gris fi ñu jaar dafa bari bon sama xarit sama doom la moom itam sama xarit la. Mm-hmm. combat et puis moom laa gënoon a xaritool ci mbir yi ndax li ma mas a ñemee wax sax kenn daaw bu ko wax daan ñëw ma ñu taxaw mu ñu bëree mu soo taxawee nii dootuma bëreel Gaston mënul dootuma du tëgg sama combat ak Balla Gaye subaa ma delloo ko 10 millions man de loolu ku ma ko xase woon ku ma ko xasaloon su ëllëg saa su ma doon rey sama bopp sax naa delloo ji 10 millions. mais boobu ba léegi delloo ko de kenn gisu ko it. kenn gisu ko woo ko ne ko sama 10 millions. man du ma ko woo am na ñu ko war a ñu koy seet ñu ngi koy seet. lépp ci yoon laa koy teg rek. est-ce que war nañ koo seet moom kay nañu delloo lan sax. waaw waaw déet su ko de moo ko wax delloo siwul kay su ko delloo siwul daanu ko seet ñu ko war a seet rek nga koy seet. mais yow doo taxaw mukk ni dootuma ko tëgg ci làmb. non kon kon nag man kon ma nekk beneen façon nit sax. samay doom la mënuma ni samay doom mi ngi mel ni sa doom sa biir kër tooñ la nga ni dootuma ko jox mu lekk wala dootuma ko jox mu naan wala dootuma ko jëndal yére wala dootuma toog di wax ak moom di waxtaan ak moom samay doom la amuma problème yooyu mais nag comme moo ni de moom moo wax day delloo na delloo si rek xaalis bi ba pare ñuy soog di wax leneen. est-ce que yow ni nga joxe gi rek jumoo ci avance bi li nga ko joxee. jaaroo ci avance non non non non non non du question juum man yàgg naa jox mbër xaalis sans kenn parce que ay nit rek ñun ay ay ay ay nit rek la ñu mbër yi gënuma leen ëpp leen dara ay nit la ñu rek mën naa fekk léegi mbër amee benn cinq mille francs man ko ma fëkk ko ci moom def sama ay nit lañu ni ma ko joxee du dara euh, d'accord nañ ci combat yaakaar naa ni combat bi taxaw na ba pare wax naa ñaari mbër yi muy moom di Balla Gaye euh, am na fu nu waroon a signé contrat benn banque bu ñu doon waxal ñu war fay ubbi compte yëpp ba ma defar chèque yi yëpp jox leen pour suñu ñëwee ba foofu directeur bi signé visé chèque yi ñoom ñu ubbee ko compte. Mm-hmm. loolu artuwul parce que ci Covid bi la nekk nit ñi aussi. Euh, sponsors yi du ñu joxe seen xaalis noonu sponsors yi dañuy def ay études di calculer di seet ba xam ndax lii su ko joxee lii lan la ñu mën a apporter fii tel tel tel wax yëpp mais booba comme man sama kàddu jiit na ma. te xam naa ne soxla na. Mm-hmm. ma woo ko. ni ko bon les sotteegul mais naa la jox dix millions en attendant nga préparé sa tabaski. Mm-hmm. pourtant boobu Balla Gaye jotul dara. pourtant boobu ay combat taxaw nañ si jotul dara ay dog yi njëg rek mais dog njëg un million day mais moom damaa yëkkati dix millions jox ko ndax mii nan teg moom mii nan teg moom cinq millions laa ko jox àjjuma altine ma jox ko cinq millions muy dix. ñu ngi tudd ay affaire chèque baax ah. rek ay affaire yooyu yooyu c'est des futilités yooyu ay formalité rek la woon formalité parce que su bi d'accord foofu loolu sax kenn du ko wax. combat bi mag daan nga ko taxawal ci noonu ñoom jox mbër bi xaalis sans nga jaar ci président. écrit wala nga jaar ci manager ay ay ay nekk Tyson nag bal la ak ñoom ñëpp loolu laa taxawee ñëw ko ba. loxoog loxo loxoog loxo ñoom ñëpp yi ma tëgg ci yu mag yëpp ku ci ne jox naa loo xam ne sa mënat a yëngu. Hmm. est-ce loolu la. yoon la kay maa am dafa nekk <laughs> mais mbër bi ah. lamay lamay traité moom ak la mënat bay signé ak la CNG di signé loolu la ñu reconnaître ñoom. Hmm. loolu rek la ñu war a reconnaître mais la may jox mbër moom avant. Hmm. ak lépp. man moom yàlla ak ay mbokkam xëy na. Hmm. ñoo koy xam. yéen a koy xam. waaw léegi bu ñu fi ñu jeexalee mooy CNG. waaw ah. bëggoo nekk président CNG dugaloon nañ la fa mais da ngaa daan da ma ko nekk su ma ko nekkee dama koy yàq Alioune li mu liggéey ak ni mu mel. ah euh, dafa rëy Alioune Sarr. Alioune Sarr fekk la fi nga ne. waaw man dama ne Alioune Sarr dama fekk. dafa fee fekkante ndax Alioune Sarr xëy na ma jiitu ci làmb nekkoon écrou séeréer ma ñëw ci làmb ji deux ans après nag ci la CNG bi am mais nit ku baax la baax nag kenn mën ko wax lu ko weesu ak lu ko gën nit ku baax la sama frère la seen baay la baayu mbër yi la jàmm rek la fi mas a dox vraiment ay njabootam sax doy le woon nañ ci làmb ji mais moom it nattoo ko ci jàpp rek mu nekk ci li ñu war a def mooy rek di ko gërëm di ko ñaanal. Mm-hmm. ñaanal ko yàlla ca xam ne ñun ñëpp euh, fii dañ fay jaar rek dañuy romb dañuy dem. loo gis dafa war a dem wala dafa war a toog. kan Alioune Alioune Alioune bëggul euh, xam nga gars yi moom gars yi moom waxi yi moom waxi yi du ma ko commenté wax hmm. ci droit ku mu neex nga na dem Ablaye Wade léegi am na ñoo xam ne ñu wax na ñëw. Macky Sall mi ñuy wax na dem danoo ma a am koo gën. Ah. te bis bu demoon ñu ni na dellu si. Eh, Abdou Diouf ma jëkkoon a dem sax ñu am na ñoo xam ne suñu tamit mu dellu si. kon jàpp nga ne instant am ñu toll. waaw ah. gisoo fi ku ko a remplacer. ah non am ah, na Macky Sall day ñaan sax am yàlla am ku ko mën a remplacer Macky Sall. Mm. mais gisoo ko fi tane. Euh, fi ñuy waxee nii mënaguma koo gis ndax seetlu ma ko su ma xel nekkul sax ci seetlu ko ko ko fi tane. ndax man pour man il est au top am na ñu soxla réew mi de. ñu ah, laajoon waay waay waay réew mi ñu ko soxla bari na. ñoom sonkoo ngi fi ñoom Bougane ñëpp soxla woon nañ pare naa ci wax ji. kontaan naa ci yow tàggatoo. tàggatoo rek nii di yedd rek ak di euh, defal sama doom ji lac lac de guerre numéro 2 di ko ñaax rek na ànd ak sagoom bu ko dara tax dérapé baayam laa bàyyam laay ko nekk sama doom la. sama xarit la ma sa doon yéene naa ko jàmm li ma mënul ci moom yàlla na ko keneen man ci moom loolu laa koy ñaanal ndam rek laa koy ñaanal réussite rek laa koy ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla jox komba joxaat ko komba joxaat ko ay komba du ko mere awma lu ma koy meree aussi mais nag sama comportement ak sama jikko mënu koo changer moom doom rek la doom du jéem a baayam kontaan naa ci yow. jërëjëf.